la Cheikh Rafaal yaa nu gindee ñoo ngi ñaanal Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi ba li mu yéene liggéey Serigne Touba mu defee ko nu mu ko bëgge te ñu ànd koog moom tey jii nag di première safar ñun marché euh, commerçant yi marché Ocass yëpp ñu ko doon waajal ñi nga xam ne bis bi mooy sunu bis te moom moo ñu may li am lépp moo tax bis bi bu ñëwatee dootuñu am dara lu ñu yittewoo lu dul fas yéene mu jàkk muy bis bi nga xam te ci am nekk marché nga xam ne ñoo gën a mën a taxal dëkk bi kon ñoo fas yéene fas yéene mbale mi kenn bañ ñu man loolu moo tax bi yëf jubsee ñu def ay communiqué wane ne bépp commerçant boo xam ne yaa ngi ci marché bi di yaxantu bis boobu na ko waajal te bis boobu ñuy fexe ba ñun ñëpp yëpp ñu génn setal marché bi setal dëkk bi ngir ñun nga xam ne ñoo koy taqal bu loolu jàllee noonu lañ ko fexe programme def ko budget woo ci nit ñi ay jaayante ñu def ci parce que am nañ tey budget boo xam ne mat na 5 millions 500 cinq millions cinq cent yi nag ñu xam ne ñun ñoo war a setal dëkk bi war a war a teral gan yi nga xamante ni ñoo fi ñëw ci lañ jënde aw nag ak fukki saako ceeb yët ko sëriñ Cheikh Abdou Latif moom mi nga xamante ni moom moom la sëriñ bi teg yëfi ci loxoom ngir ñu añale ko Baye Fall yi nga xamante ni ñoom ñooy eh, kunde mbala mi ngir xam ni képp kuy liggéey ñun ngay liggéeyal ndax xam ni ñun ñoo ñoo ñoo taxal dëkk bi moo tax ñu def ko la bu loolu jàllee ñun fii ci marché Ocass ñu organisé wu fi fexe ba luyee juróom benn camion ak ñaari biir yoo xam te dañuy maasale mbedd yi nga xamante ni moo def ay taata euh, ak foo xam ne mënu foon a jaar bu dee ci biir marché bi fu fépp mbalit nekkit wax dëgg yàlla ñu génne ko indi wut ay garawaay ñu set ko ci mbedd yi ko loolu ba loolu ci lañ nekk loolu bu jàllee yàlla seenu taxawaay muni ko tanta ndax kenn ku ne am nga ci feeñal nga ci sa yéene ak sa pas-pas ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal marché bi lu mel ni marché ambulant ak association yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñëpp kenn ku ne di yënguti jënd ak jaay kenn ku ne ñëw nga ànd koog ñoom ñu defeen ko defin woo xam ne wu gën a rafet ànd koog suñu délégué bi nga xam ne moom a am tey bis bu mel nii bu rafete nii di sant bu baax nag sonu Xadi Mbàkke mi nga xam ne mooy sunu daluwaay lépp lu ñu def fii ko defee nga xam ne tey bernde yi nga xamante ni moom lañ doon bernde mboolem balekat yi nga xam ne ñoo doon bale ci mbedd ko doon toggee mu yaatal ñu jël alalam def ci lépp loo mu jël ko ko maa ngi mu jëm ci café gi wala ci ndox mi dane moom lañ liggéey dane Fallu goo xam ne ñun suñ kër kon nag Fallu lépp lu mu yéene liggéey Cheikh jëmmi sëñ Fallu lañ koy xoolal te moom itam jëmmi sëñ Fallu lañu jàppe ba la melokaan wala mel ba xajooñu ba tax na lu ñu demel ni kër gi mooy kër commerçant yi lu soxla fi fi lañ ko kon nag ñoo ko ñaanal moom mi nga ni moo mën a fay li Serigne am ak li bu kenn ëppale te mu dund ba ba li mu bëgg ko wax di ndax suñu xol sedd na ci mu baax baax di nag mbooleem ñi nga xamante ñun lañ àndal ci biir euh, yëf ndax Aziz dafa am ay commerçant yoo xam dañoo jaayante ñoom itam fas yéene ànd ak ñun ci liggéey boobu lu mel ni fekk den mboolem jigéen ñi nga xam ñooy femme Aziz ñoom ñoo booloo tey ñëw fii ci kër gi ci njiital soxna Aji Gajaga ak mboolem ñi ko àndal ndax mun ñoo sax waaye buñ waxee soxna Aji Gajaga wax soxna Fatma Ndaw moo dëkk ci kër gi ak soxna Yacine Diop ñoom ñi nga woon ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ci teew yóbbaale nañ mboolem soxna yi di sant mboolem soxna jigéen yi nga xamante ne ay femme Aziz lañ doon ñu itam togg ay benn seeni kër indi ko fii jàppalewaat ko mu Aziz ku mel soxna Ami Diagne Xuma ànd kook ay jigéenam ku mel ni eh, soxna Asu ak soxna Xadi Diop ñu dem eh, wut ay mbana togg ko seen kër eh, def ko ci ay boole ñu indi ko fii ci kër soxna Xadi ngir mbooloo mi nga xam ne ñoo doon bale ñu añu ko kon mënuñu ko bakk ñàkk a baral cant ak ngërëm baax baax di sant ki nga xamante ni moom moo jiite woon commission organisation di Serigne Gora Saay ak Serigne Kara Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñoo lañ tegoon ci bopp ci bopp euh, kuréel googu wax dëgg yàlla am nañ leen cant ak gërëm ndax yaakaar ñin amoon ba teg ko ci seen loxo wax dëgg yàlla feeñal nañ ci kawe suñu njort bu baax a baax di sant baax seen président d'honneur di sëriñ Amdi Gaye nga xam mu àndoo ko sëriñ Ala ñoom ci lépp wax dëgg yàlla doxaleen noonu kon wax dëgg yàlla ñoo ngi encore une fois ñoo ngi beralaat ak cant bu baax baax sëriñ Gora Sarr ak sëriñ Kara Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ñoom la bokkaloon euh, euh, environnement ak Serigne Talla Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la nekkoon gis nañ seenu taxawaay ak engagement bi lañ am ci liggéeyal Serigne bi kon loolu maa ngi ciy ki nga xamante mooy délégué euh, marché bi nga xamante moo ko jiite ak mboolem commerçant yi ñu fexe toog waxtaan ba ñetti weer yu jotati fu ne ñu àndandoo tëj suñuy place seetal marché bi ba mu set doomu aadama yi fi ñëw ak ñi ko war a seet si wax dëgg yàlla ndax loolu dina jaar dina dina ndax kenn ku ne fa nga yendu ak fa fa ngay xëy rek fa nga dëkk kon nag cet googu amee tey wax dëgg yàlla te ba ñëpp kontaan ci ba ñëpp bikki loolu a la